Euh, ñu ngi fii toujours ci kër Serigne Touba bu Colobane di dalluwaayu xalif général des Mourides Serigne tax Mbacké lépp nag jëm ci waajal ëllëg ëllëg ajuma lu xew di inauguration grande mosquée Massalikul Jinaan ñu ngi fii nag ci waa Axlu Café ñoom nag ñoo yëngu ci lépp lu jëm ci kafe Touba gi di séddaleeg euh, yëpp yi ni mel kon ñu jël quelques réactions ci waa Akhlu kafe ñoom ñoo taxaw ni ñu jël euh, réaction sëñ bi tur bi nan waaw maam Thierno Birahim lañ koy wax ndaam la ci daaru waaw yéen ñu gis leen ngeen sol ay yére yu jaune ñu bind ci Akhlu kafe mën nga ñu présenter lan la waa ginnaaw bon sant yàlla suñu borom di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi waaye di ñaanal sunu jàmbaar ji baax seex Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te wér eh, ak mboolem njaboot Sëriñ Tuubaa yëpp di ñaanal tam ki nga xam ne mooy si sax Jëmm Fall mu yàgg fi loolu te wér waaye itam eh, di présenté waa kafe eh, gi rek nga xam ni ñoom ñoo ñëw fii tey nekk fii ci Dakar di segg café gi ñi nga ànd ak nag sunu jàmbaar ji soxna maam Issa Mbacke ahlu café Touba bentu Serigne Modou Fatickari Mbacke Serigne Modou Fatickari ibnu Serigne Massamba di setub ma Massamba waaye soxna Asu Gaawaan kenn ku ne xam ne doomu Serigne Touba la waaye moo yor soxna maam Issa ba indi ko café gi nag yaa ma ci yaa ma ci doy moom moo ko rafaatale kafe gi moo tax mu ciy liggéeyal Sëñ Tuubaa ci biir Touba ak mboolem li Dakar ak fépp fu ñuy liggéeyal Sëñ Tuubaa rek dafay dem rawatina nag foo xam ne si Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké ma nga fa léegi nag euh, mbokki taalibe yaa ngi nii ñëpp Touba lañ jóge ñëw si yéene ànd ak Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké ci bis bu rëy bii nga xam ne moom la war a def ci Masaalikul Jinaan euh, yaakaar naa nag euh, le 23 ba tey ñu ngi fi di segg café gi am na ñu nekk Masaalikul Jinaan seesi fa am ñu nekk fii ci kër Sëriñ Tuubaa gi ci Colobane nga xam ni li nekk ci biir kër Sëriñ Tuubaa gi ak kolo ak ak fële Jinaan lépp rek képp ku fi naan kafe rek sama am Issa Mbacke ahlu kafe moo la ko jox waaw kafe gi nag yaakaar naa bari na lool ndax 230 euh, kilos lañ indi fii ci kafe fas yéene ko fay segg jox ko taalibe Sëriñ Tuubaa yi naan ko di ñaanal baax nag euh, mboolem dong yi ñoom Sëriñ Taala waa ñii ahlu kafe bu Madiyaana lañ féete waaye ñoom ñii wax dëgg yàlla jàmbaar Sëriñ Tuubaa lañ nekk fi nag Euh, di ànd ak xidma bi kafe gi di jox café gi taalibe Sëriñ Tuubaa yi ñi koy naan kon nag ñu ngi sant bu baax te teen kërëm boo ko doon xayma ci litre ñaata la a loolu koy kenn moom mënu koo xam ndax lim bu baree bari ndax lim fi segg ci bana rek kenn xamul nu mu toll waaw segg nañ fi ay bana baree bari yoo xam si nii café suba café ngoon ak café guddi ndax ispitar xëy guddi gi dañu fiy jàng ñu fi ne di segg di segg café ba pare dañuy defar ay bane ataay ko di kon fii moom dara manqué wu fi lépp rek ñu ngi koy ànd ak si Ahmadou Mountakha Mbacké kon nag sant nañ nañu baax a baax di ñaan yàlla sama borom tam seen liggéey rafet na lool yàlla na yàlla gën a taxawal seen euh, télé bi jëm ca kaw ca kanam ndax euh, liggéey bi Sëriñ Tuubaa bi ngeen di feeñal di ko wane murid yëpp di ko ci teg seen ba di ci kontaan loolu daal yàlla na sama borom gën koo taxaw mu nekk ci télé yi gën a riche àddina bi ci doole bi am seen ay fall sant nañu yéen baax jërë ngeen maa ngi tudd Ibrahima Guèye dëkk Touba Madiana Sam di sant yàlla bu baax a baax santaat seexanaa Cheikh Ahmadul Xadim ñaan bu baax a baax sama borom gën a yokk ay leeram te gën ñoo taaf ci barkeem mu mel ni lii day mbégte murit yi ndax bis yi ñu fi am wuute na ak bisam yam fi amoon waaye lépp ak cant la wax nañu ne tey dafay gàcceel démbam waaye ku fi teew di nga xam ne tey gàcceel na démbam ndax fan yii yëpp ñu fi nekke li nga xamante ne nii moom la ñu fi nekke ñun waa daayira ahlu kafe ci njiital soxna sa Mbacké ni ko sama jëwriñ maam na waxee léegi nga xam ne jàmbaar la joo xam ne yaakaar naa waxuma murid yi waaye képp ku dib julli rek war nga koo ñaanal ndax liggéey bu rafet boo xamante ni mi ngi koy liggéey ci biir réew mi ak bitim réew yaakaar naa fu waaye dem ah da nga fa dégg daayira ahlu café ah, wala nga gis fa son bu la yii saa boo ko fa gisee rek na la wóor ne suñu jàmbaar ji moo fa jaar mooy soxna Maïssa Mbacké ñu koy ñaanal bu baax a baax sama borom kattanal ko ah te defal ko xéewal dëgëral ko ba li mu yéene liggéeyal maamam ja mu def ko nu kawe njortam suñu xol nag dafa sedd ci murid yi waaye suñu xol noonu la sedd ci yéen ñii ni ko suñ maam Thierno waxee léegi ndax da ngeen di feeñal loo xam ne mun a ñàkk feeñ alhamdulilah ba ngeen ko nangoo feeñal ndax boo leen ko feeñaloon tamit ñeneen di ko feeñal ni ñu doone ay donga di ko liggéeyal nga xam ne buñ ko liggéeyut ni mu ko waxee woon ca mbindam ma ay jinne wala ñeneen ak ñeneen ñëw di ko liggéeyal loolu rek moo ci nekk kon alhamdulilah bañ ci bokkee nekk ak yéen ñaan sa borom mi dara tawut mu teg lépp loxo sëñ Mouhamadou sëñ Mouhamadou Mountakhal Bachir mii nag moom dañuy dagaan suñu borom mi nga xamante nii ku egg moo ko yeggale yàlla nañu ko fi bàyyil yàlla nañu ko fi bàyyil yàlla nañu ko fi bàyyil mu nekk fi ci suñu kanam ay ati ati ati ati ati at yi at ba li mu yéen a liggéeyal maamam yéen a koo liggéeyal sëñ Basiir waajuram mu def ko ñu koy njortam waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu kàddu yooyu ñoom ñooy waa daayira Akhlu Café di yëngu lu lépp lu jëm ci wàllum café gi